salaamaaleykum sama gaay toujours Création ay xool leen fii li ñuy daggee pantalon super 100 yéen a ngi noonu yeah foofu noonu maa ngi ko marqué cinq centimètres waaw loolu noonu ceinture bi la quoi pour ceinture bi bu ñëwee léegi diggante braquet bi diggante braquet bi ak ceinture bi foofu noonu def naa ko vingt huit après dama si génnee onze wala 10 quoi mooy bracket bi fu mu war a yem fu muy tourner noonu voilà mais tamit sans dépasser nit ki sans dépasser nit ki souvent mun nga di dagal nit ku xam ku xaw a am yaram quoi mais il faut nga yokk say mesure quoi voilà wala yéen a gis ndoo noonu kanam gi lay génnee nii ok waa mais def leen abonné si Ouz Création bu ngeen bëggee ay vidéo YouTube voilà léegi ñu ngi toll si beneen pat bi mooy patu ginnaaw gi souvent nag moom mooy ëpp voilà yéen a ngi gis noonu li ma si génnee après damay bañ yàkkati si bi li si génnee noonu loolu noonu mun na doon ceinture après mais diggante foofu noonu war na am espace espace bu nga xamante ni dina toll ak cinq cent xool leen bu baax gis ngeen foofu noonu fi ma teg craie bi léegi noonu euh, pour boole boole bi mu mun a tolloo foofu noonu faw mu tolloo foo foo nga marqué ko ak craie voilà gis ngeen ciseau bi fu muy tourner voilà. voilà xool leen léegi dama leen tolloole léegi xool leen foofu noonu poos moo fa war a génn si kaw maa ngi ko cinq cent mètres si comme maanaam guddaay bi mu doon vingt boo ko boolee dina des vingt boo demee ba boole poos bi laay génnee noonu voilà marque yi foofu def naa ko treize ah, treize laa ko def mooy pince yi quoi dafa ram pince waa si yoon dafa ram pince voilà tubay bi cent onze la war a doon génn na bi encore si kaw mooy cinq centimètre pour kii bi quoi chantier bi voilà yéen a ko gisan